Allah

jalla xadra turan moo tax mu am ngeen gi may waaw fawqa sara fawqa sara wa sara ya kannar kay khutija loqataka wa sayqu أبادتي وما يوم يوم نتري يا خذ

يخيا لقد ألا لقد ألا خدما يسقر يا تنسب سيدي لقد وشيخ أحمد تيجا ما يميون سريا خذ الوجود difa seyxi yàlla ko may yëkkat loxoy ca kaw seyxi huma xaalu waaw te moo ko waxal gis ya waaw laqad ala laqad ala xadama ya shukuru ya kiti soobu seyxu tijan loxo ca kaw wa seyxu ahmadu tijan انا طالب يوم يوم نظري ويا حب الوجود لفاشيخي يلا قومي طالب شيخ يبقى جلو خيجاك وفلما طه رول صلو قلب مفتوى المغيور يا الله seen borom ku bëgg Seexu Tijaan loxo ca kaw wa Seexu Ahmad Tijaan ma yoom yow na teew yaa ca Tuubaa xutbul wujuud di fa Seexi Yàlla ko may ku fopp Seex Tijaan loxo ala nabi Muhammad xewal musalla ak musalla wa kazaka وسحب قناع في ويل بشيخ تجد لختك وشيخ ألفا نديدا ما يبيعون تريويا خب الوجود لما شيخ يلا كمي طالب شيخ يبيعون تريويا way di way di way di way ba akaram ya day way way way di way di way di way di way di way di way ba akaram day way di way day way di way wana sa besa di way di way day way di way akaram ya wax le day way way ba faal ku bëgg Seex Tijaan yëkkati loxo bi ca kaw di way di way di way di way di way di way ba faal ak dara way way way way di way di way di way di way di way di way ba faal ak dara di way di way di way di way di way way di way di way ak ya waaw day way di way di way way di way way di way di way ba faas ak ya mana ila sul ma saya ya way mana ila sul ma saya البعدايا ويمانا لو دقل تبيد مزايا علما ويا الحمد لله وهذا سيغ ربا خير الوجود الذي أعلاه مولاي إله من بالمزايا ويمنا لولو دقلي من بالمزايا حلوى وير الباب إلى حلوى وفي الألعاب ألنا القادة تتغم فيا الله من صدقه يا ويلا جنبي بالمزايا ويلا لولو دغرمي بالمزايا لقد قومي إما دل أو من حال أعلى تربية نعم الوردي مريم الحق يرضى وخير وما لا إله إلا بالمزايا من خليفة دمجا في العصايا حلفا ويسقي المريدين في نقاس الوصول لا نحن المرد الذي قد كان مأواه يسقي لنا في الوصول إلى نعيم ربي الذي قد كان مخوى هل راوينا للخلافة نخوي قد جاء خبيرا زخو أتباع قد مخوي بالرحمن والسلام مولانا الخلافة قد جاء خبيرا فتو أتى ختم من الرحمن والجهاد ومني أتى ختم ختم لخي بابا توزيد أتى ختم لخي لخي الرحمن والجهاد ختم أتى خاتم وختم سيدي بابا ويل أتى ختم وواو من الرحمن والجهل هوي أتى ختم ختم فضل سخد بنور أتى ختم كل من الرحمن والجهل أتى xatmul aw xatmul sëriñ Babacar Si na ataaw xatmul waay min rabbaani wal jaani fa bay ataaw xatmul loxo yi xatmul loxo yi loxo yi loxo yi ataaw xatmul loxo yi loxo yi loxo yi loxo yi ataaw xatuma waaw xatuma ku dul seex déggoo loolu ataaw xatuma waaw daraaraamaane wal jaaroo ataaw xatuma xatuma loxo ca seex déggoo loolu ataaw xatuma loxo yi ina raxmaani wal jaaroo ataaw حتبون حتبون كل سيد يقول أتى خدم أول من الرباب والجهل فويله فما ننمي أتوا على مختار مستمرا في شيئة على يرتدي سيقول أتى ختم هو ختم كل سيد يقول أتى أو ختم هوي من الرحمن والجاه لما وإذا لا يماثل بحر له مدد سريع الوجود حقا حين سقايا لما وإذا لا يماثله بحر له عدد فهو مرجو أقل في الفقايا خلفا وهو لو حوى جوده مقول فيه في طلب بحر لو أما ذرا حين آتايا خلفا وهو لو حوى جوده مقول يقلب البحر لا أواب درا من عدايا الواوي أو أصبح الوبل الآباء في من منعمرا لا يسمح الناس خرق فيه جدوى الواوي أو أصبح الوبل الآباء في من منعمرا لا يسمح الناس خرق في جدوى أتدخل فيه جدوى نخوي فيه جدوى نخوي سوتي دان صرفنا بالإمام فيه جدوى فيه جدوى جدوى سوتي دان صرفنا بالإمام فيه جدوى أتدخل فيه جدوى mooy fii jàpp Seexu Tijaan Chérif dafay maam fii jàpp waaw fii jàpp waaw fii jàpp waaw Seexu Tijaan Chérif dafay maam fii daaraam Seydi El Hadji Malick fii jàpp waaw daaraam مسعود الحاج مالك فيه جدوى ودار سيد الحاج مالك فيه جدوى باب الكرسي جنان نقي فيه جدوى وخلف بكر في جنة دمغة في جتوى الخليفة بكر في جنة دمغة في جتوى لخي لخي لخي لخي لخي سكو في جتوى وما صب لسنة بكر لخي سكو في جتوى وكفكنا بدو سرين بابكر لخي سكو في جتوى وكفكنا بدو سرين بابكر loxol ca kaw fii gi jatuwaaw ana soppay sëñ baaba yëkkati loxol ca fii gi ku fi gën a bëgg sëñ baaba ku ma soppal sëñ fii gi jatuwaaw alxaaji bal xawmi wal bayaadi alxaaji Mansour wax leen a rambo nga diine ji yow yaa rambo mborga te mawdo muñu nga yaa mujibal xawmi seeni wal bayaadi alxaaji Mansoor yaadi alxaaji Mansoor rabal xawmi wal bayaadi wax leen a dayloo sax dayda soroba dube soroba soroba soroba xamume siiwul seedin wal bayaadin alxaaji Mansoor mal xalu seer wal bayaadin alxaaji Mansoor mal xalu seer wal bayaadin wax leen ziyaara jil mam Maodo xoji dama ziyaara ji soxna Safiyatu ñaan Mansoor lii la yàlla def seer wal bayaadin والبيادي الحاج منصور والبيادي الحاج منصور القوم والبيادي رب دينتي يو يا رب sa mawdo mujibal yaa mujibal xawmi heebin wal baayaani heebin ofal baayam fal baay seen bay Mansour lañu ofal baay def leen di ba ñu màggal alaaji Mansour lañu ofal alaaji Mansour baay seen bay Mansour lañu ofal baay def leen di ñu màggal alaaji Mansour Mawlana Fall Baay دائما زول نؤف البال يمين فردا لنا منزول لنؤف البلد منزول دائما زول نؤف البال يمين محمد منزول لنؤف البلد منزول دائما زول نؤف البال dem sardal man Modou Mansour moom la ñu ufal baal Mansour Baye Sëñ Baye Mansour moom la ñu ufal baal man seeyaade Mamadu man see moom la ñu uufal baaye man seeyaade sëñ Bay man see moom la ñu uufal baaye wal baayaade man Abdul Aziz dambax dees ko dab fii jadwaaw man Abdul Aziz dambax dees ko dab fii jadwaaw ana pay dabbax Malick loxoy sa kaw fii jadwaa awo ana soppay dabbax Malick loxoy sa kaw fii jadwaa awo kuma soppal dabbax Malick loxoy sa kaw fii jadwaa awo kuma soppal dabbax Malick loxoy sa kaw fii jadwaa awo ana soppay dabbax Malick loxoy sa kaw fii taxaw awoo ko ma soppal daf tax Malick joxal taxaw fii jatuwa awoo ko ma soppal daf tax Malick joxal taxaw fii jatuwa awoo ko ma soppal daf tax Malick joxal taxaw fii jatuwa awoo ko ma soppal daf tax Malick joxal taxaw fii jatuwa awoo ko ma soppal daf tax Malick fi gën a bëgg daf tax loxoy a kaw fii a waaw ku fi gën a bëgg dabbaax Malick loxoy sa kaw fii jotuwaay waaw ana soppay dabbaax Malick loxoy sa kaw fii جدوى أو أنا صبيت بغمان لقيت كو فيه جدوى أو أنا صبيت بغمان لقيت كو فيه جدوى أو فكنا بغدا بغمان لقيت كو فيه جدوى أو فكنا بغدا بغمان لقيت كو فيه جدوى أو فكنا بغدا بغمان لقيت كو فيه جدوى أو أنا صبيت بغمان لقيت loxoy ca kaw fii jatuwaa awo ana a bëgg yal na fi yàgg te ànd ak wér fii jatuwaa Serigne si yàlla na fi yàgg te ànd ak wér fii jotawaa sëriñ Maodo si yàlla na fi yàgg te ànd ak wér fii jotawaa alaay Farouk Sey ab dogore ñëpp ko wax fii jotwa awal fir mbay se abdo góor ñëpp ko wax mooy góoram la awal fir mbay se abdo góor ñëpp ko wax mooy góoram la bëgge fir mbay se Mansour dalal na xel fii jotwa fii jotwa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 ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون بسم الله الرحمن الرحيم ما كان فيما فرض الله لك سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشون وكفى بالله حسيبا ما كان

كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرج لنخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما الله أكبر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 وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله maa damay bañ sax ñu jël temps bi rek waaye ak man alquran oustaz Saïd Dem bii toog xam naa ko ëpp na ñaar fukki at ak ñeent ren yaakaar naa mat na ko de ku am wëllëree ngi nii ku bëgg alxuraan a ngi nii oustaz Saïd Dem la tudd fa tabaarakallaahu eh, waaye nag la ma waxoon Abdou Sall Tiwaawan laa koy wax maa ngi koy wax léegi xalifa si Baye Mbakke sëñ xalifa si Baye Mbakke maa ngi ko koy wax léegi mooy di ko fàttali buñ mosaan toog ca kër Abdou Sall man xalifa si Baye Mbakke sëriñ Sidi Maxtaar Kunta sëñ Souleymane Seck alxaaji Malick Cissé Jinge ak sëriñ Mansour Sarr bu sëñ mu niiru kër Abdou Sall lañ daan añee la tax waxtaan ma daan yàgg dafa ma daan wax ne gënoo maa bëgg alxuraan ñu koy giingante maag moom ndeysaan ba keroog bi mu tëddee ci feebar bi ma ànd ak Abdou Aziz Seck suñu bos rahmatullahi alayhi wa radi anhu dem seeti ko boobu feebar baa ngi métti sax ndeysaan mu gis ma rek jóg toog ne ma maag yow ku gën a bëgg alxuraan ma ne ko man mu ne ma maa la gën a jege dem kon maa la gën a bëgg alxuraan <laughs> eh, wallaay une semaine lañ ci teg mu génn àddina Abdou Sall ku baax ku bëggoon alxuraan oustaz Saïd Dem bi bëgg na alxuraan ba tuddee imaam Mahmoud Xalil al Xasari doom tabaarakallahu sa maam moo wax ne wal quraanu huwa al miizaanu mooy natteekaay bi kon mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. nit du weddi boppam nit du weddi boppam nit du weddi boppam ñun ñoo jël suñ kilifteef jox ko kër Cheikhul Xaaji Malik bu ma nee ñun mooy man ak keneen ku mel ni man bokk man dama jël sama kilifteef teg ko ci loxol Mawlaay Cheikh Al Hadj Abdoul Aziz baax nekk jaam ci kër Cheikh Al Hadj Malick loolu la yàlla dogal ñu di ko dund di ko wax di ñaan yàlla nag suñ jëf suñ suñu wax dëppoo ak suñu jëf biig rek maa ngi seetaan alaaji abdul aziz bii muy waxtaan ci mawlaaye cheikh alxaaju xaaju malik du noonu maa ngi ko dégg mu naan man malik xam na Maodo xam na ne dama ko sopp du dëgg mu ne te Maodo xam na ko maa ngi lay dugg muy wax ba cheikhul xaaji malik di mokkale alquran te loolu moo xewoon wax nga dëgg mag dañ daan dem ci daay daara yi di tare alxuraan ñu géewal leen du noonu nga ko waxee am mag mu ko fa fekk ne ko boo jàngi woon de dana baax moo ko fekk muy jàng alxuraan baat bi neex lool mu ne ko si sa baat bu neex bii du baatu kese-kese soo utijee xam-xam de di nga yilif ñu bari du ma wàlle wax ne di nga yilif ñëpp de waaye di nga yilif ñu baree baree bare mu ne ko ndax sunguf sii ma gis mu tiim sa bopp bi may la sunguf mooy mayu yàlla mu ne mu ne ko sunguf sii ma gis mu tiim sa bopp bi may gu rëy la soo demee jàng di nga yilif ñu bari mu ne ci la Seydul Xaaji Malik dagg lu mu doon def nag utali xam-xam kon si wax ji du gudd nit du weddi boppam kayit gii mbay jum jox ma léegi rek lañuy jàng jàng yi mooy lu mel nii bu taxawee am na ñu ca def seeni loxo am na ñu ca jàpp bem taxaw am na ñu ca jàpp ba rafet ñooñu nag yaadu na ñu ne leen jërë ngeen jëf ndax baat bu gàtt la waaye ku deful dara du ko dégg kon nag sëñ Mbay Jum ni ko maam Njaay da baax waxee léegi ah, kii fi waroon a toog jël kayit gi jàng ko ñun ñëpp xam nañ ko mooy président daayira bi Abdoulaye Bo waaye nganta ko dab ñu nangul ko ko fa tabaarakallaahu moo tax ñu jël kayit gi fas yéene lim ñenn nag ci ñiñ ñi wax ne nañ leen tudd ñu yóbbaale ñi ci des ndax li wolof di wax tàgge bu ne am na jàppal ma diw man nag waxtaanuma sama dama amoon décision ne su ma ñëwee damay jël sama kàddu boole ko yépp jox ko sëriñ Habib ak Cheikhul Hadj Abdou Aziz Dabakh Fall bii toog comme Serigne Habib ñëwul Serigne Habib ñëw na ndax Serigne Sidi Ahmed a gi nii toog bokk ak moom ndey ak baay kii toog nag moom xam na ma man xam naa ndax démb la woon ca Tiwaawan ba sama doom bii ñu mujj maye bañ koy maye sax fekkuma fi moom moo ko maye. moom mii moo ko maye fekkuma bis mook Sidi Maxtaar Kunta fa tabaarakallaahu lépp ma ne Sidi boo demee rek Sidi Maxtaar Kunta ma ne ko soo demee boo fekkee Serigne Sidi Ahmed si lu ngeen def rek baax na man seen surga la ba léegi teguma fa sama tànk ndax doyloo loo leen xalifa nga xam ko tey bi mu nekkee xalifa gis ay doxalinam ak i waxam ñaar ñett nga gis ko mu jooy di nga xam ne xilaafa du lu tuuti di nga xam ne xilaafa lu du tuuti inna aradna al amaanata ala samaawaati wal ard wal jibaal fa abayna an yaxmilnaha wa ashfaqna minha wa xamalaha linsaanu loolaa tax ñuy wax wa xamalaha linsaanu innahu kaana zaluman jahulan soo teeyul nag li yuadiba allahu almunaafiqina walmunaafiqaat wal mushrikiina wa yatuuba allahu ànd ak moom alal muminina wal lu tax wa kaana allahu gafuuran rahiima la yàlla dogal kon yal na jotaayam bi yàgg yal na jotaayam bi yàgg ku ko xaar yal na xaddi ku ko jonkon yal na jaaxaan ku socc pour ree yal na jaal ba dese ay bëñ yal na bëñ yépp buur ku say bëñ buur di tal lu dul ree tabaarakallaahu yal na ko ko yàlla defal te incha allah am nañ ci yaakaar ndax bàyyam du gërëm na ko waaw Cheikh El Hadj Aziz gërëm na ko jël lépp teg ci loxoom xam la muy nekk xalifa kon nag ñun loolu yëpp fa la ñu fekk fa tabaarakallaahu ba burdu bi mujj ca Tiwaawan 97 bi mu ñëwee am ku ko déy lu mu wax dafa ne ndax li nga ma wax dëppoo naag li sëriñ Mbay bëgg kaset yaa ngi fi bu ma waxati mukk loo xam ne sëriñ bay àndu ci mën ngeen ñëw wax ma lëf fekk moom àndu ci ma ne leen doxal leen fekk loola moom bëgg ko sopp ko bu leen ko def yaakaar naa ñëpp di ko dégg kon nag ah Cheikh Al Hadj Abdou moom préparé woon na tey kon yal na yàlla fayal ñu ko te bàyyil ñu ko fi ba ci kan ñu ngi lay ziyaara bu baax di la yóbbante ziyaar it ci sëriñ Habib Eh, moom it ñu ngi déglu waxtaanam yi tabarkalla waaw yu am solo surtout bi mu def ci radduwaat nit ñi delloo leen boobu it déglu naa ko barki démb tabarakallaa muy wax ne ku yaakaar ne yàlla li mu am yépp daf ko jël jox ko Seydul Xaaji Malik ndax nga sa bopp loolu nag moom moo ko mën a wax te loolu bu ko waxee wax na dëgg yàlla li mu am xajul kër Seexuna Tiijaan yi sax ma ne anbiyaa yi ñoo gën awliyaa yi te yàlla cent vingt quatre mille yónnant la yónni mais loolu foog mu leer amul benn waliyu bu gën benn yónnant amut ñiñ fiy tudd ñépp ay awliyaa lañ duñ yónnant mais soit clair yónnant yi dem nañ jeex nañ mu ngi yem ci rasulullahi ci seyduna muhammad la yem ñiñ fiy tudd ñëpp ay awliyaa ule kon wali yàlla yooyu nag mun ñu fexe ba gën yonent yi te yàlla téeméeri junni ak ñaar fukki junni ak ñeenti junni yonent la yàlla yónni kon yàlla lim am xajut ci genn kër kon nag sëriñ Habib ñu ngi koy sant bu baax ci xam-xam bu rafet bi ci dëggu gi dëggu gi tabaarakallah yàlla ñu ko yàlla fayal sëriñ Habib nit ku nit ku am solo la nit ku yéeme la maa ngi koy déglu ba bi mu li mu wax ci ab Senghor Abdou Diouf Abdoulaye Wade ak président Macky sàll yépp maa ngi koy déglu waaw xoolal eh, xam ki lu pertinent loolu tabarakallah mu ne Senghor mën-mënam ak xam-xamam mu ngi yemoon ah caaro yi Abdou juuf ñëw Parcelles Assainies Abdoulaye du ñëw plan jaxaay Macky sàll lu ñëw jam ñaajo bu keneen ñëwee def leneen te lii mooy dëgg kan moo fi mën a dindi lii man bi mu ko waxee laa koy door a seetlu mën a gis nga xam-xam day nekk ci sa kanam te doo ko gis waaw wax dëgg yàlla sëñ Habib jërëjëf moom it ayyadahu llah wa nasara yal na ko yàlla sàmm yal na ko yàlla dëgëral yal na ko yàlla may barke bu bu ko kenn ëppale ci kër maamam yal na ko ko yàlla defal fa tabaarakallaahu di nuyu nag alxaaji abdul aziz fall moom itam ni ma ko waxee démb yëpp déglu naa ko di ko sant di ko gërëm moom it ci taxawaay bi ci kër maamam cheikh alxaaji malik radiallahu anhu ñu ngi lay nuyu di la ziyaara ah xale yi yóbbante nañ cant ak ngërëm ci yow ah mënoon nga ñëw rek toog waaye day ñëw làmb poosam ah lam am mu néew mu tuuti mu jox leen ko ne leen maa ko barkeelee ci bés bi te su la neexoon nga ñëw toog def ni asatise yi di def waxtaan boo yeggalee ñu jox la sa enveloppe nga def ci sa poos lu dem waaye moom tabaarakallah nit ko am solo la kon sëñ Abdou jërëjëf yal na yàlla fay di nuyu alxaaji Mansour ñang bii nga xam ne moom mooy kilifaay daayira bi di sa mbokk di sa deret mook alja na fi ñang bale toog nga xam ne suñu bàjjen la suñu xarit la mook Adja Ummi ñëw suñu bàjjen lañ suñu xarit lañ léeg-léeg mu ne ma xalifa bi ngeen nga ko gis sëñ Mbay ma ne ko a ah, xaw naa ko gëj a gis mu ne ma ana alaaji saaxo nitu yàlla su ko waxee rek kii lay wax ana tafsir gay ana shérif maami ñooñu moom lu mu gàtt gàtt dina ma leen laaj tabaarakallaahu kon keroog bi ma fa mujjee maak tafsir ak shérif maami mu ngi ñuy nettali ci sa sabab lu baree bare digganteem ak alaaji Cerno Saïd Nuur fa tabaarakallaahu kon alaaji saaxo ñu ngi lay nuyu bàyyi ale jum ñu ngi lay nuyu di la ñaanal wér nga yàgg ci kanamu njaboot gi ba ci kanama kanam di nuyu tamit euh, alaaji baara wan moom moo fi toogal monsieur le maire tabaarakallaahu bay di sëy fan yi di ñëw dinaa firi xutba seydul xaaji malik bi ni ma waxtaanee ci maam Maodo ndax xutba bi am solo ak lum ëmb jamono jumaa jële ca Ouest Foire ba ma koy jiite ka fa nekk léegi maa ko fa teg muy imaam Khalifa Ndiaye keroog ba ñuy ubbi jumaa ja maa jiite Cheikh Ibrahima Sall yal na ko yàlla yërëm ak alaaji Mamadou Niang bi nekkoon président fédération daayira ñaseen yépp yaakaar naa xam nga ko ci Dakar keroog ñoo fa jullee ndoor ñoom ñu julli si ak man bi ma xutbaa xutba bi ba pare ba wàcc ba jumaa ji jeex ma ne Ibrahima Cheikh Ibrahima Sall ñaanal dafa ma ne balaa maa ñaan kan moo tëgg xutba bii ma ne ko Cheikhul Hadji Malick mu ne ma ajaban lii de mosuma ko dégg moom mii nag xutba boobu lay xutba te pourtant Cheikh al Islam El Hadj Ibrahima Niass def na ay xutba yu bare bare bare bare ci àjjuma kon su jëlee xutba Maodo di ko xutba ñun réew mi sëñ Sidi loolu lañ soxla léegi nañuy boole tey bañ di tàqale nañuy boole ngir yàlla te bañ di tàqale li yàlla am li sëñ euh, Habib wax mooy dëgg xajul ci genn kër kenn ku ne dafa am loo yenu ku ne nag la nga yenu nañ la ko ormaalal bu ñu xas kenn li maam Njaay wax léegi gis nga xas kilifa jàmbur dafa métti te koo xas mën na laa xas koo xas mu ne patt nag daf la ëpp ngor ëpp la jom waaye koo ëppul ngor ëppoo jom boo ko xasee mu xas la te xas yee ca ëpp yëpp ay sos la rek foo fekk ay xas ay sos la nit nag bu ñaawee làmmeñ di sos li Serigne Cheikh Tidiane si al maktum daan wax ne tey nga xam ne maa la gën a bon mu ne ñu bon bari te yàlla ñu bon mu tey nga xam ne maa la gën di xaj mu ne ay xaje yu bari te yàlla soxlawul yi xaj mu ne tey nga xam ne maa la gën di woyu mu ne ay woyu yu bari te yàlla soxlawul yi woyu ñu ne ko nooy def mu ne da koy wax naan tey nga xam ne maa la gën a yiw mu ne loolu nag boo ko waxee nit mu génn ci yow mu ne da ko koy wan bem nangu nag ne ay la yéwén nag giw moom a gën a yiw kon loolu maam Njaay wax loolu la kër Cheikhul Hadji Malick jikkoo rek patt gi du ragal de patt gi bëgg jàmm la ak xam li nga yor loolu rek la waaye du leneen kon si Malick ñu ngi leen di sant bu baax léegi nag dañuy jox kàddu gi alxaaji Abdul Aziz Fall man li ma waroon wax yëpp dajale naa ko jox ko ko mu waxaaleel ma moo yow bu sëñ Habib woon moom laa koy jox waaye boole naa sama wax xam nga dama doon def rek présentation waxuma dara sama wax lépp lu ma waroon wax boole naa ko jox ko sëñ Abdou ak yow di wax rek ne ñu ngi sant nag asatise yi toog sëñ Habib Fall ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm ci sa taxawaay Mouhamad Bousso ñu ngi lay sant di la gërëm ci alquran ji sa Saïd Dem jërëjëf nit ku baax la wax ma waxaat ñu ngi lay sant di la gërëm di sant Khalidou Cheikh Sall ñu ngi leen di sant yéen ñëpp di leen gërëm bàyyiwuñ kenn nag ñi ma fi gis ñëpp ma leen naree tudd àddina tukki Alla Fall Alla Jaalin Fall jërëjëf maam Ngóor yaak maam Yaay ak équipe bi ngeen àndal yëpp jërë ngeen jëf Aline Badara Ndoy jërëjëf yéen ñi nga xam ne yéen ambassadeur u yonent bi sallallahu alayhi wasallam nguuda maxtaar Pape ci la bokk Malick boo ñibbisi na moom Mansour Niang ci la bokk xalifa Seck ci la bokk ak ñi nga xam ne mënuma leen tudd ak suñu soppe suñu doom joojule di saaliwu di saaliwu Diop ñépp rek ñu ngi leen di ñaanal yàlla fañ nekk ak Alassane Sow fa ñu nekk yal na yàlla màng koom ak teraanga teg ko ci seen loxo dañ bokk kook daayira bi yal na ko yàlla def ak Khady Sow ca Gabon fa tabaarakallaahu ak ñëpp rek ñi nga xam ne ñu nga ca bitim réew te bokkoon ci daayira bi in uridu illa al islaaha mastataatu wa ma tawfiqiya illa billahi alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib ala jabdu kàddu gaango bismillah bismillahi arrahmani arrahim alhamdulillahi alladi jallat qudratuhu wa alat wasalaatu wasalaamu ala man sharafahu llahu birrisalati allati samat wa ala alihi wa asxaabihi alladina hada allahu quluubahum lil imaani fahtadat wa radiyallahu an al awliyaa al mu'miniin alladina kaana lahum fi rasulillahi uswatun xasanatun ak ñi fi dikk assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen ndokkeel ci bés bi di ñaan yàlla yal na ñu yàlla boole ñun ñépp dugal ci gaaranti borom bés te moo di Mawlana Qutbul Aarifin Abul Abbaasi Ahmadu Tijaani radiyallahu anhu jiital ci nuyoo bi ak ziyaara bi sunu sang bi toog di xarit di soppe di wëllëri di Cherif Ibrahima Haydara ak Tijaani sama kóllëre ak waa daayira bi moom mii moo ko dox moo ko wax moo ko ràbb bu nu yegsee ba fii faw nu sant ko faw nu gërëm ko faw nu ñaanal ko yàlla Chérif na la yàlla defal mucc ak muccule wér ak wérle dund ak dundule sëñ Cheikh day wax ni nit ku ko waxal la mu baax la yépp ci benn bëccëg lu ko dal ca at ma muccoo ci ñun bëgguñu laa catu waaye nu ñaanal la yàlla yal na nga àgg niw yoon nuyu ziyaara sunu sëriñ sayid Sidi Ahmed si bu sunu wayjur sunu kilifa Seydi Aboubacar si bu sunu maam Cheikh Mouhamadul Mansour si tey yàlla dogal muy xalif général des Tijanes du ko ñaanal yàlla yen bu woyof ndax yenn bu woyof pour yaafus la jàmbaar piir day yenu bu diis ndax yen bu diis mooy feeñal njàmbaaram waaye daañu ko ñaanal yàlla na ko yàlla téeñal bu la yàlla téeñalee lu yem bi diis diis doo ko yëg ndax bu tegu ci sa bopp yal na yàlla may ko mu dund ba dund sàppi ko yal na yàlla may ko mu mottali mébétam ci kër maamam ak ci njabootu maamam Sayid Sidi Ahmed mi ngi lay nuyu si di la ziyaara di amit mbégte ci teg suñu bët ci sa jëmm ndax tey ci jotaay bi ñi lay xool yépp Mawlana Cheikh Al Hadj Malick Sy radiyallahu anhu la ñu lay xoole tabaarakallahu damay faral su may ñaanal Serigne Mansour bu Sayid Cheikh Ahmed Tidiane Sy Maktoum dama ko naan sëriñ bi yan na yàlla mottali yéenay cheikhul xalifa ak soxna astukan yéenay sëriñ cheikh ak sayida safiyatu ci yow mottali sa yéenay bopp doo ko indi nag ni ko ak yéenay njaboot yi sell yépp ci yow waaye yow itam yan na yàlla mottali seen yéen a way jur ci yéen mottali seen yéenay maam cheikh alxaaji malik si ci yéen su ñu amoon ñaan gu ëpp loolu ñu ñaanal leen ko waaye jàpp nañu ni ñaan du ko ëpp ndax xam nañu yéene Maodo ci njabootam tabarakallahu nuyu gi ñu lay nuyu ñu yóbbaale nuyu bi nuyu sunu sëriñ sëriñ Habib Sy di sa mag ñoo daan bokk toog fii léeg-léeg mu yebal la nga wuutu tabaarakallaahu kon ñu ngi teg ci sa loxo nuyoo bu nu koy nuyu ak bi nuy nuyu xalifa bi yépp nga jottali ñu ko ak yeesal gi nuy yeesal sunu nekk njaboot ci ñoom nuyu sama sang yi jigéen yi tabaarakallaahu naa ni sang piir lañu man maa mutul soxna asiyatu si ak sama jigéenu bopp bee soxna fat si tabarakallah ah saalihaat lañu <laughs> wala muslihaat xam nga alsaalixuuna yabnuuna anfusahum wal muslixuuna yabnuuna aljamaaat boo dee saalix li nga am mënagul defar sa bopp ba nga cay defar keneen kon ci sa bopp ngay yem boo dee muslix nag defaru nga bay defare daa xëy nuyu tabaarakallaahu sunu jigéen bopp sang bi soxna karimatu jàkk tabaarakallaahu ndokkeel ko ziyaara ko ak mareenu bés bi di ajaa bànn tabaarakallaahu sunu yaayu bopp ji yiw ndeysaan soxna ndey di nuyu sang yooyu yëpp ak ñi ngeen dendal nuyu imam Muhammad si ndax ci barabam la nekk moo ñu dalal nuyu Baye Alé Jum tabarakallahu nuyu Serigne Mansour Ñang ak mbooleem kilifa yi nga xam ni ñooy taxaw njaboot gi beral nag nuyoo ak ziyaara suñu daayira naa bokk daayira te doo ñëw guddi àjjuma doo cotiser kenn du lay gis man rek maa ko sañ <laughs> daayira soppay nabi naa dañ may comprendre rek yóbbaale ma tabaarakallaahu ñu am kóllëre lañu fa tabaarakallaahu sëriñ nag dafa am lu ma dal shérif sëriñ Habib dafa téléphoné sëriñ Mbay Jum yóbbante ko ci man ma tànkam lu kàddu ya <laughs> bëgguma ko dégg ma ñëwaat léegi sama sëriñ Sidi Ahmed si déyaat ma ko ñaag dina kenn du ko tànkam la ngeen baal ma ma nuyu sama ustaasu bopp sëriñ Habib Faye di boroom xam-xam tabaarakallaahu sëriñ Habib ñu ngi lay nuyu di la ziyaara di la ñaanal yàlla yal na nga gudd fan wér yal na yàlla yokk yaatal sa dënn leeral sa xam-xam ba tabaarakallaahu li ngay sonn ci sa kër maam Seydil Hadji Malick yal na nga ko muurloo ba tabaarakallaahu mel ni kon Chérif la daloon sama mbokkum pël ma daf maa xaw a dal dama pël yi baal na ñu ni dafa nekk ci kër baayam baay bi am xam-xam at mu ne ñu tàntal baayam mu gàmmul njaboot gi sotti fa xam-xam ñépp jariñu ah, moom mu juddu ci barke baayam jotula la jàng bàyyi bi faatu mu mag fa ñu ne ko yaay xalifa sa bàyyi ñu jàpp datu gàmmu nit ñi jaar fa nu daan jaar tànt bu rafet tànt bi fees micro yi nangu waykat yi di way ñu solal ko mbubb mu rëy mbaxana mu rëy marakiis yu rëy kaala gu rëy yet wu rëy teg ko ci fauteuil bu rëy mu ni kon war naa def lu rëy def na lu rëy nag waykat yi di way di way ba trois heures ñu ni ah agsi nañu nag fi ñu daan joxe góor gi kàddu bi kon sëriñ bi tey yaay góor gi bismillah mu yëngal bopp bi ni est na bi si karaat leen gaa yi sikkar di sikkar ba quatre ñu ne ah sëriñ guddi gi nag ngi yeex taw nga wax mbooloo mi lu ñu yóbbu mu ni mbooloo mi salaamaaleykum mu ni ko waaleykum salaam mu ni waaw ndax xam ngeen lu ma bëgg wàkk ñu ni ko déedéet mu ni ah ku kamul kay jarul wakkal kon nañu fomm gàmm gi ba déwén ca déwén sa ñu jaaraat fa ñu jaaroon ba waxtu wi jot ñu jox ko micro bi gaa ñi ne bi yoon bu nee ndax xam ngeen la ma bëgg wax na ñépp ni waawaaw mu ne salaamaaleykum mbooloo mi ñu ko aleykum salaam mu ne waaw ndax xam ngeen lu ma bëgg wakk ni ko waaw mu ne ah ku kam ba pare kee jarul wakkal dañu <laughs> bàyyi gàmmu gi ba déwén ci déwén sa gars yi jot a réunion ni kon na parti bii wax waaw waaw ñii ni déedéet si ba quatre ñu jox ko micro bi mu ni salaamaaleykum mbooloo mi ñu ni ko waaleykum salaam ndax xam ngeen lu ma bëgg wax ñii ni waaw ñii ni déedéet mu ni kon ñi kam nañu kamal ñi kamul wasalaam <laughs> waaye man tam fii ngeen ma joxee mikro bi daal da doy na waar tabaarakallaahu eh, mu mel ni nag yéen a tànn tem mu di jukko yi yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa yonent bi nag ñaar ñaari yëf la ko fi yàlla indee ci jiitu mooy mu leeral dëkk li ci des mooy mu yëwanal jukko mooy tax nga xam luy faratay dund nit warul sonn ci lu ko dul jariñ te faratay dund ci ku yonent bi yar ñett génnu ko ñett ci leeral dëgg gi nga góor góorlu ba ku dul yàlla bu mu la doy boroom dul yàlla bu mu la doy boroom ndax keneen koo doyloo boroom ku dul yàlla day xiif ni yow di mar ni yow di jaaxle ni yow di dee ni yow te mënu jox leer mënu jox barke abadul kawaakiba wan nujuuma jahalatan lan yablugu min hadiyiha anwaara hal alana tawxida daain qablana wa hada alquluba ilayka wal anzaara kon yashku laka allahuma qalbun lam yaish illa li xamdi ulaaka fi l akwaani ku dul yàlla bu mu la doy borom ñaareelu farata gi mooy nga góorgóorlu ba kuddul yonent bi du la doy référence royukaay tax seen maam Mawlana Cheikh Al Hadj Malick Sy radiallahu anhu wax ni Cheikhuna Tijani Cherif maag moom dañu bokk atelier di liggéey waaye su desul lu dul roy maamam lay roy direct